réponse waaye mi ngi woo ñëpp ngir giraw générale bi ñu mën koy réussir. lan mooy impact bi Birahim jëm ci grève bi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci dem beex dikk bi rawatina ci wàllum koom. mais euh, ay millions la yoo xam ne dañ koy perte euh, te pas seulement li ñu woowee perte direct parce que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy liggéey du ñu encaissé du ñu versé. Mhm. mais ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jaar ci yooyu les woto pour mën a dem ci seen liggéey. Euh, loolu euh, perte lay doon également boo xamee ni kenn mënu ko natt ci lu soxal wàllu grève bi mooy li ma doon wax sànq nag il faut nécessairement que euh, réew dafa am ñaar wala ñetti secteurs yoo xamee ni bu ñu xësee taxaw même bu dee benn fan nit ñi sentir ko muy commerce muy wàlluk transport di dem ak dikk bi waaye tamit lépp lu jëm ci wàlluk euh, produit hydrocarbure ñu ne par exemple ni euh, ñii di station essence yi dañoo euh, grève wala yu ni mel am na ñooñu ñoo xamee ni en plus bien entendu muy ñiy liggéey ci wàlluk kër docteur ak yooyu daanaka secteur bu nekk dafa am importance mais dafa am moment yoo xamee ni yaa ngi wax wàlluk relance économique yaa ngi wax wàlluk fexe génn ci situation yi nga xamee ni covid 19 bi da koy indi ñuy njort naan am na beneen vague buy ñëw loole yëpp da nga war a fexe ba sur le plan économique nga mën a taxaw taxawaay boo xamee ni lu mën a ñëw di nga ko mën a dékku wala euh, jafe-jafe yi du doon lu bari mais secteur transport bokk na ci loo xamee ni dafay xaw yëkkati sa économie parce que ñoom bu ñuy wax ci wàllu dem beeg dikk c'est pas seulement Dakar bii ñuy wax naan trafic boys yi ndax fii am na oto wala amul oto mais ñiy def euh, voyage di génn Dakar di dem ci yeneen i régions yi ñoom it bu fekkee ne dañoo banque seeni loxo kenn di ab investisseur wala di koo xamee ni dafa am lu mu waroon a ñëw wut si Dakar wala dem ci beneen région fu ci mel ni Diourbel amul oto yooyu nga xamee ni ñoo ko war a yóbbu dafay poser problème te mën na am jeexital sur le plan économique. su weesoo transport bi El waa waa CUSEMS également ñoom it euh, kuréel la góombay jàngalekat yi nekk si daaray yi diggu doom yi euh, grève générale la ñuy amal tey ji ndax ñetti at juróom-benni weer ñu ngi euh, topp ci ay accords yu nga xam ne nguur gi daf koo signé mu tëwoon ak saafara El Hadj. xam nga xam nga dafa dafa aborder tem euh, tomb bu am solo. Mm. ci grève wu. Euh, dawalkatu woto yi transporteurs yi mais noonu itam la mel ci grève wu jàngalekat yi de façon mm-hmm. globale wàllu koom-koom daf ciy am solo nga ciy bàyyi xel wàllu politique daf ci am solo mais wàllu sociétal loolu nag mooy suñu problème c'est-à-dire que boo gisee grève yi di bëri te du am sax njëriñ souvent ci ñu koy def euh, mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo jiite réew mi di gouvernants yi dañu dul yëg grève yi. askan bi ñoo koy yëg. ci du ñu jaay carburant. askan bi ñoo koy yëg ci du ñu am oto bu ñu dugg. askan bi ñoo koy yëg parce que seen i doom bu ñu xëyee jàng ñu renvoyé leen. askan bi ñoo koy yëg parce que ñooy jàngalekat yi doon ay père de famille bëgg a seen réew. mais ñooñu ñëpp kenn ki ñuy waxal moom yëgul loolu dundul li ñuy wax societal ci biir askan wi euh, am na xaalis yow par exemple Birahim tey yow sa yëgoo grève bi parce que am nga oto boo taal. yëgoo grève bi parce que carburant tuuti nekkoon na ci. muy man muy lu mat un million Sénégalais yoo xam ñu ngi fi mais oto yi cinq millions six millions ñoo koy soxla. Hmm. gouvernement yi ñoom yëguñu ko parce que am nañu oto. yëguñu ko ñoo ngi ci seeni ay clim yëguñu ko demuñ ci station jëndi carburant yëguñu ko parce que demuñu ci boutique jëndi ceeb yëguñu ko parce que seeni doom jàngiwuñu ci école yi yëguñu ko parce que doonatuñu ay jàngalekat donte ñu bëri ci ñu ay jàngalekat la ñu woon donc en réalité dañu nekk ci fi ñuy jëlee dogal yi. te yëguñu Sénégal yi coono ak jànkuwaan ak euh, jafe-jafe bi ñuy jànkuwanteel ana coowal mburu mi jeexul tey Sénégal yi bëgg ak bañ ñu ngi lekk li ñu leen forcé mhm. bëgg ak bañ boo xëyee l'essentiel na nga am mburu lu ñu la ko jaayee nga jënd mhm. coow li jeex na ana coowal suukar bi ñu doon wax ne yokk naak yokkuwul. ñu mm-hmm. nangu fi ay alalu boroomi boutique jàpp leen entendre leen alamaan leen fan la mujj kenn ku nekk yaa ngi continuer di jaay li nga sentir pour mën cee daan sa sa doole. ana ne ñu ngi toll ci njëgu gerte gi nee nañu am nañu ay point de vente yu ñu réglementé. Mm-hmm. demal ba xam gis nga benn point de vente bu ñu réglementé coow li ci am c'est-à-dire ñoom yëguñu li xew. parce que demuñu sur le terrain que demuñu ci askan wi parce que yëguñu coono askan wi loolu mooy li tax defe naa ni grève daanaka amatul valeur Sénégal et pourtant lu ama am solo la te la ñuy kaas lu xel mën a nangul te ñoom ñooy responsable bi mmh. bu dee chauffeurs yi policiers yi leen di jàpp ci yoon bi la wax ak yeneen accords yu nguur gi respecté wul mmh. mais policiers yi leen jàpp da fekk amuñu kayit kayit yooyu fan la tardé parce que ay étrangers ñoo koy contrôler léegi di di ko joxe ak ay caprice ak ay promesses yoo xam ne respecté wuñu ko loolu benn la bu dee ci côté école yi yéen ñëpp umpale umpalewu leen ni jàngalekat amuñu plateforme revendicative bu bees saa bu ñu grévé dañu ni accord yu ñu signé woon 2000 nangam 2000 nangam 2000 nangam mais nguur gu wax ba noppi te mënoo sàmmanteeg li nga wax parce que yaa ngi foofee sa kàddu hmm. parce que nawloo ñi ngay waxal parce que hmm. gëmoo sax ba xam ni bi nga toogee di wax xam nga ni yow na leen ci sa conscience sa damir xam nga li ngay wax doo ko def hmm. eh, loolu moo grave bu tey jàngalekat yi boo leen laajee bi ñu bi ñu signé seen accords yi ak léegi ñaata ministère moo jaar ci ñaata ministre ñoo jaar ci seen ministère boobu ñaata. Oh. tey ñu wax ak ma Demba suba ñu jëlee fi ma Demba indi ma sàmba bu ñu noppee ci ma Samba ma ko du ñëw ba ma ko du ñëwee ma ma non c'est-à-dire dañu sériewul ci dundu société bu sénégalais te loolu nag foofu la ñu war orienté seen politique parce que bu ñu ko xamee ak bu ñu ko xamul réew mi gàll góose na seen doxali doxalinu askan wi metti na seen dund metti na indi ci saafara moo gën vraiment di làkk naa quoi. ok ñëwaat bi jëmale ci procès Barthélémy Dias xam tey jii euh, lay euh, wuy jiwaat mel ni kon nag euh, fukki fan ci weerub décembre mujj bi ci weerub novembre dañu ko woon ba ak yëngu-yëngal tey jii nag moom candidat bu yeewi askan wi bu fii ci mairie bu Dakar dana wuy ji lépp jëm ci procès bu Ndiaga Diouf ma nga xam ne dañu ko faatoon démb nag si fàttali amal nag doxantu ci mbedd Ndakaaru Ndiaye procès ba ak dikkaat fàttaliku ñu ànd seex fàttumate Diop Barthélémy Diagne fas yéene jàkkaarloo euh, juge bu chambre correctionnelle bu cour d'appel bu Dakar maire sortant bu Mermoz Sacré-Cœur ñu fas yéene ko fa juger en appel ci rek mbiru Ndiaga Diouf muy nervi bi nga xamante ne moom la ñu fàttoon ci 2011 moom nag jugé woon nañ ko rek ak fukk ak ñaar ci ay doomi aadama te ñu tëjoon leen ci atub 2017 ñaari atub kaso nag lañ ko tëjoon juróom-benn yi mu tëdd ci procès en appel boobu nga xamante ne nag lu bare yoon daal dinañu ko dàq waaye nag ci weeru sulet bi ñu génn nag audience ba lañ ko daal di fixé woon ci fukki fan ci weeru novembre gi ñu génn waaye Dias Fils ak Yewwi Askan Wi ñoom la ñu waxoon rek dañoo jàpp ne stratégie la ñu teg ngir saboter candidature am waaye lu ñu mel parquet bi nag da ko weddi woon ci noonee nag ñoom ñu daal di woote rek résistance àllarba googee na cortège bi rek.